ak ñun ci euh, télévision Futur Média Mike euh, peut venir nous rejoindre euh, ci plateau bi il fait partie des plus grands ambassadeurs <coughs> yu Afrique laay wax sax bijou alors Mike Sylla boo koy définir Pape Cheikh day wax l'art porté hmm? qui vous porte donc ci biographie am noonu la commencé moom nag mi ngi bokk ci ñi ñu activisme culturel lay def depuis les années 80 jusqu'à présent mu nekk ci stylisme ci musique ci euh, artiste complet la daal et puis style am je pense que dañ koy reconnaître parmi boo jëloon euh, style yu bëri jaxase ko da ñëw rek boo egsee di nga ne bee mooy ba suma egsi la ah. tellement euh, markam dafa dafa différent ci li ñu mës a gis yëpp mm. domaine de prédilection am cuir la mais aussi ak peinture tissu africain yi chaque fois muy génne ay collection yoo xamante ne daf koy teg ci défilé yi am Afrique et puis nationale ñu ba tax na jox nañ ko ay trophée yu bëri yoo xamante am na yu mu ci indi sax pour waxtaanee ñun ci plateau bi mu nekk artiste sénégalais boo xamante ne je que yamul ci représenté Sénégal ci lañ waxtaan ak yow. Hmm. ndaxte y avait un événement mais tey foog naa ne dañ koy gën a yaatal pour jéem a gën a découvrir kan mooy Mike Sylla parce que ñun yàgg nañ la suivre yàgg nañ la topp. mais il faut aussi que sénégalais yi xam boo xam Baye Fall Dream lan lay def. waaw mais maa ngi di gërëm sant ak Pape euh, Cheikh parce que yéen euh, jox ngeen ma possibilité mu mën a wax ak euh, téléspectateurs yi et wax ak sénégalais yi parce que. <laughs> foofu nga toll. <laughs> jërëjëf et puis surtout aussi pour remercier sénégalais yi parce que. trophée yi de boo ko tojee di nga xam ni kii da ko liggéey ay at mu jaral ko mu jóge Sénégal dem dëkk France France sedd di neex maayeg di voyager maayeg di dégg lu ko neex di dégg lu ko naqari parce que nit ku ñuul nekk nègre di évoluer ci ay kanamu tubaab ba am ay trophée bee ngi mel ni palaat nga ñu dong koy toj c'est-à-dire kon yow wéro oh. voilà donc Mbaye <laughs> nga continuer euh, jërëjëf li yëpp mooy wane nag euh, ndam yi am na ñu ma bàyyi kër ga parce que ba ma doon à moment donné yii yëpp. Euh, li yëpp pour Sénégal la. li yëpp pour nit ñu ñuul ñi la. Mm-hmm. li yëpp pour li suñu xeet la. Mm-hmm. su ma nekkee dëkk yenn dëkk yi damay jékki-jékki xalaat rek sama xel dem comme ni ko sama grand Idrissa Diop di waxee. Mm-hmm. picc picc mi ngi ci kaw xel naa ngi ci suuf à chaque fois loolu dafay nekk sama xel tout le temps dama naan. jërëjëf jërëjëf euh, yàlla jërëjëf euh, sama sama waajur ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoom ñoom euh, permettre tey nii ma mun a toog fii ci plateau bi den remercier parce que liggéey bi yëpp en fait ñoo ko bokk. Sénégal dafa yaatu yaatu bi nga xam ne képp ku nga xam ne ki dem nga rek indi ndam wala def loo xam ne lii baax na pour waa dëkk bi. et puis nekk li nga xam ne lii utilité la. Mhm. parce que loolu la bu nga def lu concret waaye du utile waaye boo defee li nga xam ne lii euh, maanaam sama slogan mooy faisons de l'utile notre action. Mhm. parce que ci foofu la lay nit ñi di ràññee ku nekk si ñoom tamit euh, gis si seen bopp daal. loolu moo tax en fait euh, liggéey bi may def c'est vrai que. yomb na yombul yomb na parce que dama mu dama ko bëgg dafa nekk sama biir xol dëpp bi ma nekkee xale dëpp bu ma nekkee Médina rue Angle 6 la ma sama xel jox mu war a dugg ci li nga xam ne mooy mbirum création parce que samay parents ay créateurs lañu. Mm-hmm. ay concepteurs lañu ay bijoutiers orfèvres lañu maanaam alchimiste. loolu moom gën a jox xam ma ñu Medina création bi macha allah boo boo boo génnee sa kër rek déjà. yaa ngi dajeeg artisan voilà lool la. lool moo ñu gën a sax dimbali ba création bi yàlla may ma ma am ci. Euh, ouverture am ci innovation am ci li nga xam ne li na mun a permettre ba tey yàlla dimbaliñ ba ndam yi nga xam ne indi naa ko Sénégal mu jaare noonu parce que euh, euh, innovation bi ak def li nga xam ne lii lu original la moom la ñi nga xam ne nii ñoo gis sama liggéey ràññee ko ci foofu la ñuy xoole xoolu ñu nit ku ñuul ñu ngi xool li nga xam ne lii yàlla may na ma ma mun leen ko won mm-hmm. ba pare ci loolu tamit ñoom ñu xalaat nekk lii war nañ ko jox li nga xam ne lii wala euh, gëdd bi nga xam ne bi at euh, war na ci daal c'est c'est en fait. mais est-ce que du li nga doon côtoyer uude yi nekk foofu moo tax sa xel dem ci jël cuir def ko sa matière de prédilection. non du loolu parce que en fait cuir mi man xam quelque part rocker la mm-hmm. c'est-à-dire que. bu tax mu mën a xam nga rock bi ñun ñun nit ñi ñoo ko moom. Mm-hmm. boo xoolee ci bi du njaaroos yàlla ko yàlla yërëm te ñu xare ko àjjana. Mm-hmm. moom rythme yi am na rythme mu doon joué ñun temps yi nekkee xale dañ ko doon dégg parce que suñu koñ la rek ñun ñu ngi angle six moom ngi angle vingt donc mm-hmm. kër ngéew la ngi juste en face mm-hmm. suñu ko donc mat bu ma nekkee xale rythme ak lépp lu jëme ci sonorité lépp lu jëme ci création dama dañ ci dañ ci dañ ci màgge mm-hmm. caravansérail bi nga xam ne mi ngi woon fii nga xam ne suma mm, euh, xaritu papa Cheikh euh, ñu koy waxati euh, Bathierno Seydou Nourou Tall fi mu ne woon foofu moo doon sunu moo doon sunu pas penc mais foofu lañu doon foowe mm-hmm. te foofu amoon na benn endroit bu tuddoon caravansérail mm-hmm. te foofu lañ doon daje ñun donc foofu noonu lépp ngi fa woon pour ñu mun a permettre ñu ñu ubbeeku temps yi nga xam ne jotoon nañ fa def yenn endroit yi nga xam ne c'était important pour que bi jëm kanam donc ki loolu ñu màggee en fait. Mhm. et yére yi bu mu ñëwee c'est parce que tout simplement sol daf ma yàgg neex te suñu grand frère yi nga xam ne ñu ngi nekkoon si suñu quartier affaire lu jëmee ci affaire look wala jëmee ci affaire style. dañ ciy dañ ciy xaarañoon dañ dañ ko bëggoon tamit ñoom it loolu nag moom ma inspiré. ba yàlla dimbali ma bu ma demee tugal ba liggéey ci mbirum njaxas maanaam jël ay yenn tissu di ko patchoo di ko defaral mu nekk li nga xam ne euh, ku ko sol gis ko xam ne kii Sénégal. Mm-hmm. moom mooy emblème am maanaam côté patchwork bi njaxas bi. Mm-hmm. ma dem ba nga xam ne milieu bi loolu gars yi ràññee ma ci may doog a dem ci beneen matière muy cuir bi. te cuir bi lu ma ci neex mooy côté protection po sur po bi. nga xam ne et puis dafa dafa chic. et puis nekk li nga xam ne lii tubaab bi bëgg nañ ko et puis dëkku sedd lañ nekk boole ci. liggéey bu ma ci mun a indi maanaam jël ko. peinture bi bi def ci li nga xam ne lii mooy sama culture boobu mooy suñu aada. wane li nga xam ne lii ñu mun a permettre symbole yi ak signes yi ak yeneen yi nga xam ne yi mun na ànd ak moom. Mhm. ba nga xam ne ku ko sol xam ne kii originalité la man xam nga bis yow ñëw nga sama. atelier su ñuy wax ci originalité baal ma ci dagg bi. est <laughs> ay pièces uniques ngay defar wala bu ci nekk mun nga ci def deux à trois. am na série limitée mais man lu ma lu ma neex dëgg dëgg mooy one on one on one. Mm. pièce unique euh, waaw pièce unique. parce que foofu la ñuy euh, mun na tamit euh, toucher nit ñi parce que xam nga léegi de plus en plus ku nekk da ngay bëgg am li nga xam ne bu ko mu méngoo keneen. Mm-hmm. wala nga sol li nga xam ne lii balaa <laughs> balaa nga koy gis. di nga wër di nga wëndeelu mbaay mbaay. <laughs> mais en parlant de pièce unique d'habitude bu ñuy defar benn affaire boo xam ne pièce unique la dafay xaw a cher est-ce que Maxi là est accessible parce que gis naa la temps yi ngay wax que yaa ngi ak atelier Médina et tout ça donc ça veut dire que di nga defar fii Sénégal. non bon Sénégal il faut que non ma am lum leen ràccal. il faut ma am lu mu leen euh, beral. Mhm. parce que fii du question prix. parce que xam nga aar amul prix. Mhm. Euh, te man lu ma intéressé sama sama liggéey lépp mooy nit ñi. parce que euh, sama création nit ñi ñoo koy sol. Mhm. te parfois. Euh, deful ma liggéeyuma rek en fait aussi tamit pour rek africain yi parce que euh, lu intéressé mooy concourir marché yi nga xam ne xamuñu suñu culture mu mun ko ko mun a dugal suñu culture foofu. Mm-hmm. ñu ràññee ci ba pare respecté ñu. Mm-hmm. kooku dama ci insister. Mm-hmm. respect mais je pense que loolu commencé nga ko parce que yaa ngi Miami am na benn prix bu ñu la jox muy Designer Choice Awards. waaw euh, moom mooy mooy premier bu ñu ma njëkk jox bi. te yow yaa nekk premier africain bu ko jox. waaw loolu loolu gars yi wax Euh, Bichou xam nga dogguma la de mais dama bëgg wax ne lii bu ñu ko njëkkee jox dama sant yàlla yonante bi sant samay waajur sant tamit surtout li nga xam ne lii maa ngi koy def ak ay nit parce que du man rek. li ngeen gis yëpp liggéey may def dama nekk ak ay nit ñi nga xam ne dañ ma dañ ma gëm dañ ma aussi tamit jox seen gëdd jox ma. Euh, vision bi nga xam ne dina mën a permettre ma inspiré ñu inspiré ma. li yëpp dama ko bokk ay nit man la. maa ko maa ko man la ma ko yàlla man la yàlla dimbali ma am ko mais tamit dama ko bokk ak ñi nga xam ne nii ñoom aussi dar depuis des années. <laughs> muy fii ci Sénégal. ak à l'extérieur parce que su ma demee New York dam samay samay gars yi ngi foofu su ma demee LA pareil su ma demee Paris Paris nag mooy suma base mhm. man maa ngi Batignolles xam nga foofu nga ñëwoon seet si ma mhm, mhm. foofu tamit pareil man ñu muy liggéeyal Sénégal yi ñu ngi ci américains yi ñu ngi ci italiens yi ñu ngi ci ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ñi ñu sax wax as euh, ñu koy waxeeti euh, naga def naga def <laughs> waaye ñu ngi ci gis seen bopp formé naa leen ba léegi ñoom wallaay bilaay watalaay ñu ngi formé yeneen booy. Mm-hmm. super ci biir Baye Fall Dream comme que concept la. et que c'est pluridisciplinaire am na ñoo xam ne nii tey ay star lañu ci biir loolu. Mm-hmm. ci ay departement yu bëri. parce que du ci li ñuy def nii du ci mode bi rek de. Mm-hmm. parce que ñu ngi ci musique bi. ñu ngi ci peinture bi ñu ngi ci danse bi ñu ngi ci vidéo bi. ñu ngi ci ah, en général comme ni ko waxee. surtout poésie am na ay yi nga xam ne yu ñi nga xam ne ñu ngi cay tugal. Mhm. kenn ki moom lañ gën a xam fi ñu ràññee mooy grand corps malade bien sûr ak ñeneen a ñeneen ñoom ñëpp ñu ngi génnee ci biir concept Baye Fall Dream donc nekk na li nga xam ne li muy Souleymane Diamanka Sénégal la der moom it ci Slamour yu mag yi la bokk mais kooku benn département rek la bokk la yeneen yi nga xam ne ñu ngi ci yëngu di ko def aussi tamit pour suñu culture jëm kanam. et puis surtout mu nekk li nga xam ne lii tubaab yi nga xam ne ñi nga xam ne ñi ngi ñi ngi liggéey ci biir concept Baye Fall Dream ñu gis si seen bopp parce que suñu gisul seen bopp duñ duñ toog. donc on peut dire que Baye Fall Dream euh, concept la bu yaatu. Euh, macha allah am mode. am mhm. musique am yeneen yeneen gox yi yeneen département yu yu rallié ci ci suuf ak ci biir ak biti. voilà voilà et on est en train en même temps di euh, xool ci image yi. Euh, yenn ci sa ay collection mhm. euh, euh, ci télé bi mhm. muy liggéey bu am solo boo xamee ni yaa ngi koy def depuis depuis très longtemps jot nga habillé ay star fi Sénégal yoo xam ne ni def nañu collaboration ak yow Miami la ñu gis New York la ñu gis mais ba yeneen dëkk yi guyan par exemple mhm. bi nga fa demee ils étaient éblouis de voir ce travail extraordinaire bi nga xamante ni yaa ngi koy abattre c'est quoi secret de Mike Sylla là depuis tant d'années parce que comme on dit yéeg yomb na mais sax ca sax ca moo moo moo jafe lan depuis les années 80 ba léegi très longtemps hmm. non boobu xale yi juddoo <laughs> xam nga ce que lan la hmm. bëgg nit ñi hmm. liggéeyal nit ñi fonk nit ñi parce que euh, li yëpp dañuy dem bàyyi ko fi yàlla na yeex mais ñu lu lu gën mooy nga jël nit ki moo tax euh, am na concept Baifal Dream dafa ànd ak Baifal Dream and the Human Tribe Baifal maanaam le rêve du couleur maanaam njaxas bi. Mm-hmm. njaxas bi toujours njaxasu Baifal boobu mu ngi gis noonu gàllaaj boobu. moom laa wax naan laaloo bi. njaxas bi waaw boobu noonu foofu mooy sama inspiration. Mm. foofu laa toogee foofu laa taxawee. Mm-hmm. ba pare xool lépp loo xam ne li mun ci boole. mu nekk surtout euh, li nga xam dina mun a permettre nit ñi suñ ko gisee mu bëgg mu neex leen ñu bëgg ko. Mm-hmm. ba pare surtout fonk tamit yëre bi nga xam ne bii maanaam objet bi maanaam mm-hmm. euh, œuvre bi si tu veux maanaam parce que yii ñu ngeen gis nii ay œuvre d'art la. benn bu ne waaw mm-hmm. boo na woon la mais comme nu ko waxee c'est-à-dire bi. lan du du leneen lu dul jéem a xool comme ni nga ko waxee tout à utilité bi daf loo xam ne day utile ba pare nit ñi bëgg ko et puis tamit nga daf ko euh, d'une manière euh, professionnelle professionnalisme bi depuis des années. Mhm. lu ñuy daw lépp pour rek yàlla lu ñu tamit Sénégal jëm kanam ñu am aussi tamit benn vision euh, spirituelle bu koy accompagner parce que lii tamit dafa dafa am aussi euh, côté bi nga xam ne bi mooy noblesse bi. Mhm. parce que anoblir cuir nga jël ko def ci li nga xam ne lii. Mhm. dina mun a permettre que képp ku ko gis xam ne lii dafa original. ba mhm. pare classé chic. waaw am côté chic bi voilà loolu la mooy côté cuir bi xam nga loolu mënoo ko am ci textile. Mhm. mënoo ko am ci ci mhm. cuir bi dafa nekk matière bu noble bu prédilection bi nga xam ne sunu maam yi moom lañ doon jël di sangoo di protéger wu. <laughs> loolu moo ne nii ba léegi. Ah. mais sànq ba yaa ngi wax cuir tout le temps dafay revenir. waaw yaa ngi wax aussi ni da nga am base fii Sénégal. mais yaa ngi xalaat aussi suñu chaleur bi parce que en général fii Sénégal on Euh, matière waaw ban matière ban genre tissu nga yaakaar ni ne mooy dem ak ñun. non am na yenn cure yoo xam ne cure yu léger la dafa mel ne tissu léegi xam nga technologie bi dafa évoluer mhm. donc am na un tissu yu léger yi nga xam ne euh, plutôt euh, cure yu léger yi nga xam ne ñu ngi koy defar industriel yi ñu koy defar léegi. Euh, et que techniquement mun nañu permettre ñu mun a euh, jël matière bi liggéey ci ba pare mu mun a neex suñu suñu nit ñi fii ah. parce que am na yenn chemise yi nga xam ne en en cuir léger. boo ko solee wala daim léger. boo ko solee dina mun a permettre nga doxantu de de. et puis njaxas bi njaxas bi oyof na ak ak une petite dose de de cuir. wala yenn gilet yi voilà gisoo bi ma sol ni maa ngi door benn gilet mais am na. Ah, am na yeneen gilet mais Pape am na bu ma la kii. waaw waaw ma la wiccaxal léegi tout à l'heure. munoo munoo doo demee ah, noonu. Baara John indil doo demee noonu je me rappelle ci époque bi nga xamante ni yaa ngi habillé ay mm-hmm. euh, Solar te pourtant yàgg de à mm-hmm. l'époque ñoom ñoo doon gën di cartonné sax que euh, génération bi à chaque fois bu ñu lay interviewé waan tu mm-hmm. disais euh, damay rêvé pour dem yóbbu affaire bi Sénégal dëgg la waaw 2018 nga réalisé nga réalisé c'est une chance ou parce que liggéey ba yegg et puis surtout tamit Pape c'est-à-dire que Euh, xam nga Sénégal euh, bon à travers man maa ngi nuyu sama mbokk diaspora bi. ci amee bi Myriam Makeba. waaw dëgg la ah waaw. mais ndeysaan bu mu ñëwee sama atelier. Ah. dafa ne maa la doon wër depuis des années. Ah, maa ngi doog man maa ngi doog ñëw fi dama kontaan gis la. jour boobu jour anniversaire am la. ma ma ma jox ko possibilité mu sol yëre Baye Fall ba pare tegal ko ci li nga xam ne lii moom moo doon cadeau d' anniversaire am moom la demee Allemagne Berlin daf daf fa concert loolu yëpp. Euh, te ku wax ma Mariama Keba wax africanité wax panafricanisme wax aussi surtout esprit de lucidité bu mu am bi parce que mm-hmm. Afrique du Sud bële ba moom ci la ma ne man dama la bëgg dama bëgg nga ñëw Afrique du Sud. Mm-hmm. mu ne ma su nga ñun cuir bi dañ koy sol parce que Afrique du Sud mois d'août dafay sedd. Mm-hmm. mu ne ma ñun dañ dañ la soxla foofu ñëwal. ci laa ñëwee dem foofu dem. léegi sax siiw yomb na mais booba tam nekk vedette yombul woon. Euh, ñu ràññee la ci biir gaañ yi parmi tant de créateurs yu yu yu yu xewoon à l'époque Euh, luy doy bu doon doy doy bu yàgg waaw mais xam nga rek euh, lu dëgg lu lu yàgg dëgg la. Hmm. et nekk na li nga xam ne lii du ci man quoi comme noonu ko waxee c'est-à-dire euh, yàlla mi nga xam ne dara taw ko moo ñëw liggéey dimbali ma ba liggéey bi. ma hmm. mun ci tamit ràññee jox aussi possibilité Sénégal. Hmm. nekk sama dëkk bi nga xam ne bi dama ko bëgg dama ko fonk sama biir xol. yàlla mi nga xam na loolu. loolu moom may gën a motiver. loolu moom may gën a gën a motiver d'ailleurs ñu bëri sax samay xarit yi prix yéen gis nii ñu ne meew est-ce que président mos na la recevoir ma ne ko non man xam nga ah, lii dama koy def dama koy def pour pour pour yàlla jàppale ñu. il faut boo ko amee jël mais comme il dit l'essentiel est de bosser. pour pour voilà parce que am ne man dama ko defal pour suñu suñu dëkk defal ko tamit su suñu xeet. mu nekk li nga xam ne li yàlla euh, yal na yàlla jàppale ñu rek mu gën a avancé gën a gën a fii tamit Sénégal am naa fi yenn projet yi nga xam ne mm. euh, comme ni ñu koy waxee ku wax feeñ bëgg may bàyyi rek yàlla jàppale ñu mm. ñu gën a continuer mais comme ni ñu doon waxee sànq collection bi maa ngi koy préparé mm-hmm. te façon dinañ ko suivre waaw te ah te te su boobaa incha allah rabi Medina laa koy sargale défilé collection mi ngi ñëw <laughs> ok ah. on va on va faire un défilé pour Mike Sylla pour collection bi pare en tout cas c'est un plaisir recevoir ku mel ni yow ci plateau bi parce que depuis 80 ba léegi ngay représenter Sénégal Afrique ci biir monde bi euh, ça peut que faire plaisir euh, ñu am la fii ci plateau bi mu nekk artiste boo xam ne je pense que ñëpp respecté nañ ko côté musique lan nga prévoir ah côté musique nag am na album yu bëri yi nga xam ne def naa leen mais mais ah. xamu bu relier défilé. damay ñëw gàddu samay xalam dama ma créé yenn ay choralires yu ma créé. Uh-huh. ay invention ay pièces. choralire c'est quoi. c'est entre ay instruments yi ma defar la. Uh-huh. yi nga xam ne c'est entre la cora la lyre la sitar la guitare. Hmm, yooyu. Hmm. dinaa ci benn sax. parce que su ma hmm. demee ba ay su ma liggéeyee ba sonn moom lay jël accordé ko. ma thérapie. loolu njaxas la. njaxas la. Ah, njaxas musical. c'est vrai cora lyre sitar euh, guitare cora ah. lyre. qu'on appelle solfège. <laughs> Eh. <laughs> ay instruments yu yu jafe joué la. yu jafe joué la yu euh, jafe accordé déjà. Ah, donc euh, waaw. mais li ma la wax nii pendant parfois ay une heure de temps. mu nga fa ne jàppale accord muy bañ may continuer. mais si nga boolee bëri Kora rek dafa jafe accord waxtuma la ak lii. mais si nga Pape. vingt-une cordes encore. Ah. oui oui vingt-une cordes mais man bu may joué Kora lii bu ñu inventé bi. bi ma inventé ak sama benn xarit bu tudd Philippe Dubré muy un luthier bi nga xam ne bii sama xarit la dafa ñëw gis sama liggéey gis yëre yi mu neex ko ma defal ko ay yëre mu ne ma lan nga bëgg ñu ñu job lan nga bëgg ma defal la comme instrument. Mm. ma ne ko lañ def benn instrument nga xam ne su ma taxawee di raconter ay histoire di wax ak nit ñi. Mm-hmm. ci la ñëwee defal ma benn bu sept cordes ñëwaat defal ma douze ñëwaat defal ma benn bu vingt trois. Mm-hmm. yëpp ay gaam yu différent mm-hmm. ay sonorités différentes. bu ci nekk wallahi billahi watalaay day faje mu ci nekk oh. day faje cest à su ma ko joué xale yi suñu rombee doon jooy suñu déggee kii bi dañuy taxaw nañu je te jure ba affaire bu kéemaane bu kéemaane man man dama si nga su ma ko joué ba pare su ma toogee dama naan allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa moom moom laay tëjee man lem affaire bi dugal ko ci kii bi teg teg ko à côté je te parce que xam naa ne que sonorité yi may dégg parfois man à une heure deux heures du matin mm-hmm. sama biir atelier mm-hmm. man rek laa ko xam te su ma fa génne ba kii ba ba tali ba teg. c'est un vrai c'est un vrai c'est un vrai artiste. Mm-hmm. rek mooy waxee mooy waxee nii. El Hadj looy wax ci moom. eh Baye Cheikh ci wax bi dama ciy jàngat lu am solo. Mm-hmm. am ñoo xam ne ñi dañu am mérite. Mm-hmm. te ku am mérite dañ la war a delloo njukkal. kon war nañu ñaan président. mu recevoir na suñu soppi bi mhm. mm, parce que am na ci mérite mhm. parce que am na ñoo xam ne ñii li Pape Cheikh ne fa nga jaar mhm. ba agsi fii nga agsi te dara taxulul Sénégal kooku dëgg-dëgg am na loo xam ne ku mag télévision yi nekk ci àdduna bi ñu xëccoo de télé 5 à voilà yeneen télé yi barki démb ko seetaan ci télé mag yi donc ñoom xam nañu mooy kan kooku daal ñaan nañu ko président mu mu mu mu jëlal suñu bi dëgg-dëgg ñu échanger parce que ba nekk lu am solo dina tax ñi nekk ñi mel ni moom moom te nekk bitim réew góorgóorlu ba mën a apporter dara ci seen réew ndax moom apporter dara ci réew ndax lii yombul benn médaille bii rek mën nga dund ba dee te doo am benn médaille te am na ci yoo xam ne mi ngi nee mu jal yëpp mënu ci àdduna bi ci àdduna bi ah. dafa bëri ay euh, nit yoo xam ne Sénégal la ñu fekk baax nekk ci ay domaines yoo xam ne réew yi nekk dañ leen fa jox cër ñuy jaay drapeau bu Sénégal léegi des fois dañuy bañ sax di ñëw ci dëkk bi ndax dañuy naan cër bi ñu leen war jox sax dëgg la ah, reconnaissance baal leen maax mais loolu ça fait mal ça pas ça fait pas mais mais gis nga mal aussi des fois bàyyi wax ci loolu may ko tudd non mais Pape non li ngay wax nii. mais depuis des sama xarit yi am na samay xarit yooyu ñu ne mais non c'est pas normal ñoom toog nañu. ñu la Sénégal pour kii. Ah, ah. may la non mais garaawul ba kii ah. beneen ñëwaat tege. Hmm. ñu ne ma non la ba ñu dem gars kii la. Seydou sama xarit la. ñoo màggandoo ñoo bokkoon Paris ensemble. wax naa ko ne ko Seydou ba su ma ma gars yi yóbboo ci ci sa waay. te ma a demee. mu ne ma non non non naa kii. Seydou Gueye mii nag rue neuf man ma dëkk <laughs> sama waay je reste que je reste convaincu que ministre de la culture Abdoulatif Coulibaly moom dafay sensible ci il regarde tout de la mais mais mais liy joxe dimension tey mm-hmm. euh, ku nekk bitim réew rek bëgg ñibbisi mm-hmm. dafay commencer ci chef de l'État mm-hmm. muy wëri Sénégalais yi nekk dans la diaspora di leen jox ay raaya loolu daf leen yokk fit parce que bu président reconnaître rek peuple reconnaître foofu nag ak say dex waaw ku ci nekk dañ la am jox benn domaine. Ah, ah, boo xam ne bii yaa ko war a lijjanti. Mm. Mm. ci war a lijjanti parce que loolu yëpp mënuñu. ministre de la culture président mm. absolument ci ki nga xam ne ñi moom la ñu dénku domaine boobu la. dëgg la moo war a saytu loolu. dëgg la moo ko war a seet moo ko war a lijjanti. absolument pour mu ministre de la culture. wëri wëri wëri ndaaraan yu mel nii. daal di fexe ba moom ci boppam parce que ndamam la. fexe ba dem ci euh, monsieur le président. na ko am nañ benn sénégalais de kii de war nañ ko recevoir. ñu wan ko télé. ndax sénégalais yi seen bopp mën a jokk ci moom. Mm-hmm. ci référence bi ñaareel bi mooy ñenn bitim réew nekk ci yeneen euh, euh, yeneen domaine mën a am sañ-sañu ñoom it mm-hmm. ñibbi si Sénégal def comme li mu def en tout cas on est très fier ak ñoo bëri noonu nag ñi ne ci diaspora bi maa ngi leen di nuyu di leen kii ku ci mel ne sama grand bi nekk Indianapolis ñu ak sama xarit Jibi Kan mm. ñoom dañu jàpp ci ndam yi nga gis nii parce que su ma ñëwee États-Unis mm-hmm. ngir yàlla ñoom la tamit à bu Miami bi yeneen yi nga xam ne maam ko dama ko def biir Indianapolis day Black Expo mm-hmm. jox nañ ma ñaari ndam moom ci liggéey bi nga xam ne bi maa ngi ko fay def moom euh, Jibi Kan bi nga xam ne sama xarit la depuis bu ñu nekk xale ak kii ñu naan Mamou Mbaye nga xam ne war naa dem ni en février ci Black History mm. fee ci Indiana am na benn projet bu ñu a def bi nga xam ne bi Sénégal laa fay représenté auprès des Américains bii mois de février bii di ñëw incha allahu rabi te kooku Mamou Mbaye menn mi nga xam ne mooy dégg moom ci boppam liggéey na liggéey bi nga xam liggéey bu rëy di ko defal communauté sénégalaise fee ci Indianapolis voilà en tout euh, yendu ak yow euh, mais comme euh, programme bi moom euh, mu ngi bëgg a jeex dañu koy def li tubaab tuddee partie remise donc Malick la on vous donne adresse yi nga xamante ni di ngeen ko mën a fekk foofu Médina exactement rue 1 waaw rue mooy suma kii foofu moom mm-hmm. su ma ñëwee fa laay dem mm-hmm. namantiku de kii mais nag maa ngi yeneen gox ñu ngi ba yéen todd ak tubaab jalaaw côté yooyu la ñu nekkee fa la ñuy liggéeyee mais mm-hmm. Médina dafa am partie bi nga wax base entre rue 1 ak rue 7 rue 7 moom foofu mooy suñu deuxième kër bi nga xam ne bi foofu la yàlla def mun fa tamit nekk ak sumay mbokk ak sumay xarit ak sumay am di jàmm. mu ngoog. merci beaucoup euh, Mike Sylla balaa ñuy. Euh, euh,